ak mbirum radiation. ci hmm. laay waxee woon producteur bi je pense c'était sur plateau avec Kewlo leen beneen bi. Hmm. boobu Ziguinchor lay xewee nag waaye Ziguinchor du hmm. du Dakar Dakar yaa leen di barricadé Ousmane Sonko. mais fële ñoom ñoo lay barricadé loolu fee loolu moo fi am de. <laughs> gisoon nañu woon ñu barricadé leen. kenn mënul jege Sonko. Ziguinchor waaw waaw waaw Ziguinchor. il a fallu que Sonko génn. et tout ça ñu doog ko mën a jàpp ak. parce que ñoom it dañoo am lu bokkul ak yeneen portion wu euh, territoire. waaw si Ousmane Sonko est condamné pour crime il ne sera plus maire. justement c' est que moom maire parce que kon waa Ziguinchor. Mhm. seen volonté mën nañ koo confisquer waale dans toutes ces procédures de tapale huit chefs d' inculpation yëpp crime la. surtout ça. suite beauté viol menace de mort bu ci daloon ci kaw dootul nekkati maire Ziguinchor. ki ma yërëm kay mooy ki nar a dem naan mooy remplacer ji Ousmane Sonko ci mairie ba waaw kooku moom yërëm naa ko lool dina sonn ndaa ma egg Ousmane Sonko si ah normalement day doon ki topp si moom adjoint bi mm, adjoint bay bañ hmm? na ñëpp bañ c'est-à-dire démb démb li Ziguinchor wane waaw parce que non seulement seen engagement mm-hmm. mais tamit c'est de leur maire dont il s'agit mm-hmm. actuellement ils sont combien de temps sans sans sans voir leur maire mu ngi bëgg a yàgg de quand même mm-hmm. te mu te ñu gis ne am na lu mu commencé woon ci ay travaux. Ah, ci ah, ville ba voilà. Mhm. le premier magistrat de la ville avec son fameux bureau. Mhm. commencé engagé euh, des travaux pour la ville de Ziguinchor. Mhm. nga jël noonu ci te benn condamnation bu ci dal ci kawam ci yi ñu koy topp moom dootul nekkati maire ba. article 235 de des collectivités locales donc effectivement Ziguinchor a plus à perdre dafa am lu muy perdre leneen. lu mhm. bokkul ak li seen mais nag mais nag mhm. Mhm. Ousmane Sonko c'est le salut national yaakaar waaw parce que lu tax nga wax la non parce que li muy def Ziguinchor dañ ko transférer rek neuf domaines de compétence des collectivités locales imagine maintenant qu'il a les coups de franche qu'il euh, définit l'intégralité de la politique de la ah, nation. ñi ñi ciy dugal naan réalité du pouvoir. waaw yooyu tappale la à chaque fois bu ñu waxee ñu naan. loo gars li ñuy wax ak buñ toogee yaa les réalité du pouvoir. Ousmane Sonko tontu na ci boppam. Hmm? Ousmane Sonko tontu na ci boppam. avant les élections présidentielles de deux mille dix neuf. Hmm. Cheikh Yérim Seck foog naa moo ko jëloon en interview. Hmm. di wax mbirum réalité du pouvoir. est-ce que lii ngay wax yëpp boo ñëwee toog di ko def. Macky Sall cinq xaw ma cinq cent mille emplois ba mu ñëwee toog gis na ne nangam. Mhm. Ousmane Sonko avait donné une réponse très séduisante mu ne ko réalité du pouvoir ku mu teree def ses promesses électorales yëfu tappale nga ko jàppee. Mhm. maanaam tappale la ñuy utiliser pour bañ a respecter seen i engagements. Mhm. électoraux. ba pare jiñ ko réalité du pouvoir boo boo nee. tey Sénégal bëgg naa ko génne ci guuta bëgg naa ko tënki ci impérialisme mhm. le franc CFA dañ koy kii loolu ban réalité du pouvoir moo la ko mën a deñ si mhm. c'est un euh, projet très bien réfléchi mhm. nga xam ban kii nga koy exécuté dafa mel ni rek Ousmane Sonko bu ne euh, bu ñëwee dinañ euh, revisiter tous les contrats pétroliers ñu ne loolu mënul nekk dañuy fàtte ne Sénégal rompre na fi ay contrat waaw am pagaille mais c'est-à-dire peut-être que tu t'exposes ci euh, ñu daan la pour réparation de préjudice mais xoolal ce que tu perds est-ce que ça vaut ce que tu gagnes donc Ousmane Sonko du Ziguinchor kese ñoo am euh, la chance d'avoir Ousmane Sonko mais Sénégal Afrique parce que li muy def parfois day am tache d'huile ba génn euh, frontières yi donc kon effectivement je pense que ni taxawaayu Ziguinchor bi mën na doon taxawaayu Sénégal mais aussi taxawaayu Afrique parce que trajectoire am mm-hmm. moo tax bu may dégg ñenn ñi di wax ay rébellion daf may def ay ree mhm. koo xamante ni il est dans le mhm. te dit que ni ñun suñu état yu ndaw yii nii day euh, restreindre suñuy euh, chance de réussite mhm. de décollage économique donc ak une vision panafricaniste nit xalaat ne woy kooku c'est un séparatiste mooy ku gën a ku bëgg a taqale maanaam des micro états que nous avons nga xamante ne daanaka presque mënaluñ seen bopp dara moom dafa bëgg gën a bëgg Euh, émietté loolu loolu ban euh, euh, est que xel mën na ko nangu wala boog il n'a pas lu Ousmane Sonko moi j'ai lu crayon à la main mm-hmm. Euh, pétrole et gaz chronique d'une spoliation mmh. livre solution mais ak tous les projets de société yoo xamante ne présenté na ko Sénégalais ma dama koy lire waaw donc boo xamee mm-hmm. euh, sa philosophie sa vision mm-hmm. am na yoo xam ne boo koy dégg daf lay reetaan la ko ñii euh, di wax ne euh, ñi nga xamante ne bi mooy union des magistrats sénégalais génne nañ sànq UMS génne mm-hmm. nañ sànq communiqué euh, di wax si envoyé naa la ko sax sa whatsapp léegi ni mm-hmm. di wax ci lu jëm ci wàll verdict beeg wax yeeg lu ni mel en résumé xam naa ne bu peut-être dañ ma may non ne daal fu toll nii di ci nekk di ci wax ci ay presse beeg yooyu noonu valable mooy fañ ko war a non non non non. L'UMS a appris avec mën naa ko lire. je pense temps bi dinañu ko may L'UMS a appris avec euh, stupéfaction le communiqué émanant de l'agent judiciaire de l'État suite à la décision rendue par le président du tribunal d'instance de Ziguinchor relative à la radiation d'un homme politique des listes électorales. L'UMS condamne vigoureusement les attaques contenues dans euh, dans le dit communiqué et visant un juge qui a rendu une décision dans le sens waaw qu'il croit conforme à la loi. Ben, l'UMS rappelle que le seul débat judiciaire valable est celui euh, qui se tient au prétoire et non par voie de presse. ñaar si une partie a une euh, procédure euh, judiciaire quel que soit son statut estime ses intérêts lésés il lui est loisible euh, d'exercer les voies de recours prévues euh, par la loi et laisser la juridiction compétente statuer mmh. doit ainsi être banni toute action attentatoire à l'indépendance de la justice, à l'honneur des acteurs qui l'incarnent. Mm. Dès lors, l'UMS invite les partis de tous bords à se plier à ses principes et à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires judiciaires. Fait à Dakar le 13 octobre 2023. que non parce envoyé naa la ko léegi. après nga envoyé ko ko. effectivement c' ça c' de ça qu' il s' agit. ma jaaxal ñoom dañoo def bureau exécutif signé wuñ ko. pense mais que... puisque c'est Moustapha qui me l'a envoyé Moustapha Niass. c'est donc donc donc c'est authentique Moustapha wow. <laughs> léegi léegi léegi di ko remercier. ñooñu noonu nag léegi taxaw di kaas di xas juge beeg lu nekk ñu yàq ko ko fi mu toll nii. Mm-hmm. sur la base de rendre la décision boo xamante ne. Mm-hmm. arrangé wul waa boor bee. UMS wax na leen lu nekk bu leen d'accordul. Mm-hmm. dañ leen defi seen recours te toog xaar yàlla. waaye ay bam xarit. waaw Ousmane Sonko fait peur ah. ah il fait peur parce que gis nga UMS bon les magistrats n'ont pas le droit de syndiquer. Mm-hmm. gis nañu euh, à un certain moment donné le juge euh, Télico qu'il avait parce que ñoom à chaque fois il se voit parfois ci menace ñu leen di. kii mm-hmm. mais gis nga fii am nañu am nañu koy xas le juge bi. waaw moo tax ñuy wax yi ma jambal mm-hmm. ma jambal raconte des choses mais man jàpp naa ne. il est beaucoup plus porté en triomphe que que que ñooñu ce sont des choses dérisoires. Mhm. marginales ñaata journalistes ñoo am Sénégal. bëri na benn képp nekk di yuuxu garaaw. ah justement pourquoi. à chaque fois lu ñëw. dañuy gën di dégg pour juge bi defoon deux mois yi lu nekk la ko yàq. ok mais loo xamante ne ñaata ñaata ñaata journaliste la ñuy jàpp naan ay outrage à magistrat. bëri na ba mu ba tey juge boobu noonu lu nekk mu yokkoo parce que rek juge bi rendre na décision boo xamante ne ça ne touchait pas. Uh-huh. l'éligibilité de Ousmane Sonko. Uh-huh. kon kay ñoom li ñu doon xaar ci procédure yi mooy euh, ñu ñu ñu ñu ñu laal euh, éligibilité. Uh-huh. alors que Mame Mbaye Niang nee ko yow boo waree porter plainte rek ñu xotti sa war ma maanaam defaraat son honneur. moom mooy objectif bu procédure bi or defaraat honneur euh, nekkul woon mooy yitteel gars ma mm-hmm. jàmbal euh, li ko kilo mooy de deux mois mënul tere Ousmane Sonko bokk et il le dit nee na moom moo dem ne seen bas que ni waa ji ma ngay dem te bu demee bu yeggee du baax ci ñun ah. ci ñun kan mooy ñun sax. moom moom système xanaa <laughs> parce que Ousmane Sonko après les élections de 2019 ci la ñëpp waroon mën a comprendre ne en 2024 il sera incontournable. Mm-hmm. incontournable. parce que damay faral di wax ne le succès d'un opposant politique mm-hmm. n'est pas seulement tributaire de son savoir-faire Ousmane Sonko a beaucoup de savoir-faire mm-hmm. mais du loolu kese le succès et aussi tributaire des excès des erreurs et des mm-hmm. errements du régime le régime en a fait beaucoup bi mu koy euh, kii ni bokk ci contexte Covid boo xamante ne presque le monde était à l'arrêt ndekete boobu ñoom ñu ngi dóor suñuy xaalis ñoom moment boobu àdduna bi yëpp nekk ci njàqare ñoom ñu ngi sàcc ñoom Covid bi. pare loolu bu roog sow bi. Hmm. waa ji yooyu woy Covid bi nangam nangam Idrissa Seck na sarax ci biir Ousmane hmm. Sonko était le seul maître à bord. Hmm. qui prenait en charge euh, les problèmes des Sénégalais nañu fàttalikuwaat Ousmane Sonko ci Covid ba ba ñëpp demee woon pare nañu nañu dem xooliwaat discours Ousmane Sonko bi mu génnee il était c'était l'unique qui avait pensé que fonds yi nañ ko gérer na mu waree. bu ci kenn dugal man parce que man jàppoon naa ne loolu yëpp ay tappale ay procédure d'urgence nekkatoo code de marché euh, kii mhm. yëpp lañ euh, teg à pour faire face à à à ce virus là ndekete ñoom bu ñu waxee combat mais ils ont une autre appréciation de combat mhm. parce que l'autre appréciation euh, du combat contre le virus mais moo doon dóor alalu askan wi mhm. mille milliards yoo xamante ne sénégalais yi ñoo contribuer directement génne seen xaalis joxe et indirectement par le fisc. alors mille milliards ñu dagale ko àdduna di dund pandémie ndekete am na ñoo xamante ne ñoom dee seen yoon newul ci loolu ñu ngi dóor moonin bi di dem alors donc kon euh, yooyu noonu yëpp nag permettroon à ce que Ousmane Sonko am plus de visibilité parce que moom kese lañ gisoon muy poser les enjeux yi nga xamante ne moom moo soxaloon euh, Sénégalais alors de là jusqu'à 2024 ba électoralement parlant politiquement le PASTEF a réussi à être la première formation politique ñu ne ko du fi daal maanaam à quelques mois des élections nga bëgg a jël liggéey boo xamante ne nit ki engagé na ko depuis 2014 ba tey nga loolu yëpp nañ ko neenal yàlla moo ko seetaanul moo tax mu andi séeréer bi moo tax est-ce que xam nga si ne tey je pense ce matin euh, Moustapha mu ngi ko doon wax ne moom aussi tamit fii la nekkoon Dakar ñu jël ko yóbbu ko xaw ma fan après si la ñëwee à Ziguinchor. est-ce que ce n'était pas une affectation punitive. si genre euh, noonu la ko noonu la ko ni ko Moustapha expliqué. Oh. donc mu mel ni ne yenn saay loo tourné tourné. maanaam di ko wër-wërloo ba moment bi nga koy soxla Ziguinchor fekk ko Ziguinchor <laughs> yàlla garaaw yàlla du nit. yàlla du nit mbaa du niñ <laughs> koy waxee. dafa am loo xamante ne comme euh, je dirais à ami ba ba Cheikh Bara Ndiaye. Mhm. am na loo xamante ne mbirub yàlla la. Mhm. waaw parce que tamit euh, tout ce qu'il a sacrifié pour son engagement politique pour jëlee askan bi ci point X pour yóbbu Y loolu mu sacrifié yëpp. Mhm. nga bëgg a ñëw ba nii rek yow nga yore say ay pexe nit ak say calcul da ngay fàtte yàlla mais il est là. waaw ah, loolu la de te foogu ma ne ñoom ñii nii. même sans Ousmane Sonko mën nañ am dara. Hmm. ah non non non non ils pas de candidat. Hmm. ah oui ce candidat là ne peut pas gagner bureau de vote loolu loolu. moom hmm. moo am depuis que il est ñëw sax ñoom gis nañ ne teg nañ benn gouvernement sax. waaw ñu ne gouvernement de combat.